di amaat mbégte ci jataay bi aljëppa dafa ne woon dana andi alalam dana andi alalam ak dooleem ak xam-xamam ci biir yonnatun bi am na sanq si waxtaan bi ñu jot a junj ci suñu mébét ci xalaat yeeg xam-xam bi ñu dajale woon lu toll si ñetti million nee nañ ko dugal si gannaaw sëñ Muntaxa la mu def ñun jàpp nañ ne na la si ñun ñu roy ko si wone rek ne suñ yéene weesu na fuñ suñ man-man kon daal ñu ngi fetliwaat suñu yaakaar sëriñ Touba suñu ngi laxasaay su gannaaw mun Muntaxa ngir liggéeyal ko di am yéene te ànd ak kuréel gi ñu naatun ngir li si Muntaxa bëgg mu am ko si yàlla na suñu borom barkeelal te ngi dégg ngërëmal suñu Tuubaa si lépp jërëjëf. jërëjëf noo ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne mooy délégation bi bàyyi ko Jabaxa Jabaxa nag bu ko ñi ko bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ngi dégg ñu ci bari xam nañ leen ku dem ci université ba nga xam ne Cheikh Mamadou Muntaxa naaloon na ko di nga gis seen jëf. ca njëlbeen ba fiñ toll nii bu feeñee seen jëf doon na lu fa mënta ñàkk ki ko xamul ba gisu ko it nañ xam ne li ñuy liggéey dañ koy liggéey te teg ko ci taalibe duñu ngistal waaye ay expert rek la dajale ci fànn gu ne te lenn dong leen ñor mooy fexe ba li sëñ bi di defarlu mu doon lu gën te tege ci yoon loo xamante ne kenn du yab yoon wi kon kuréel lañ boo xamante ne murit yëpp naw nañ leen di leen sant su ngeen ci boolee nag ñëw fekk si kuréelu junnatun bii nga xamante ne Cheikh Mamadou Mountakha lépp moom la euh, mu sose ko ci diggante commune bu Touba ci njiital sëñ Abdou Lahad Ka ak ci Touba ci kanam ci ji njiital sëñ Habibou te tey jii sëñ Abdou Lahad Habibou mii toog ku ne xam ne moog sëñ Habibou jënn jëmm lañu ñu ñaar ak Hizbut Tarqiyyah loolu su ko defee daal di wax ne maa leen ñeenteel kon yoonu murit gépp dugg na ci biir ndax maa leen ñeenteel googu moom sëñ Mountakha moom ñëpp dugg nañ ci biir te jaba ci biir biir loolu la tàbbi ndax turu ak jabha sëñ Muntaxa moo ko bind moo ko sos kon moo leen di liggéeyloo kon seen dikk gi ngeen dikk indi ay xalaat ñun rafetlu nañ ko te dafa dañoo toll sax ci intégré li ñu tuddee une cellule stratégie boo xam ne dañ koy créer ci biir euh, euh, comité de pilotage yu Junnatun pour ñu xam ne dëgg la lijjanti ndox mi nga xam ne mooy inondation yi ren ci jamp-jamp bi baax na waaye tamit sóoraale luy tax déwén du amaat kon donc wàllu planification ak wàllu stratégie ak wàllu lépp lu jëm ci euh, prospective ak innovation doon yoo xam ne du mën a ñàkk kon ku ne xam na ne loolu mënee koo def te boolewuñ leen ci moo tax tey jii ñu am jataay bii ñu am ak yéen amaale ko itam ak waa Touba xepp Touba xepp di ay ay ay boroomi xam-xam yoo xam ne euh, nos nañu ay liggéeyu yu am solo di ko defal sëriñ bi tey jii kon noog yéen noo fi dajendoo woon ak ay expertu commune bi ay ay experts u ak ay experts u ca kanam ngir mën a xool nan lañu mën a def ba fànnu xam-xam ñi nga xam ne dañ ko war a dajale ba lii am dootul amati ñu mën koo def kon su ngeen ci boolewaalee nag di seen addiyee yéen tam waa Jabha jox ko kuréel bi jàppale ñu ko loolu it yéen a ngi soññee kon man du mënuma lu dul jëlewaat ci ab soññ ci sama bopp ak di ci soññ mbokk taalibe yëpp ñu xam ne lii rek Sëriñ Tuubaa moom jëf ci lañ ci rawante ndax wala jën amanoo joo gis waxamiloo saalihaati moo ci topp waaye gëm naa sëriñ bi bëgg naa sëriñ bi jëf aksi mu mel ni day jafe ci yow loolu du doxee nu murit kon ñu ngi leen di sant ci turu kuréel bi tey ñaan itam na ma ko waxee woon léegi rek sëñ Saliou la mu waxoon ci addiya nee na sëñ Tuubaa moo wax ne waxuma ne lii rek la addiya jëriñ waaye bokk na ci njëriñal addiya bu la fekkoon yoroo dara da lay jox wërsëg la fekkoon nga yor lu néew da koy baril bu fekkoon nga yor lu bari it da koy yàlla na leen ci fekk ci darajey sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf sëñ bi na fi ñaan wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an haadikin